ngi noonu ci diggante Ama ak fils de Pape Diouf Ama mooy ndaamali moo xaw a gàtt ngemboo ngemb ñuul li sengoor ya fils de Pape Diouf moo ñu wan gannaaw mooy njool mi ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan fils de Pape Diouf kooku ma nga soqeekoo ca écurie Mam Ñambaan le grand champion Ama nekk écurie Ndargu Ndaw ca Ibou Bambara ñaari xale yaa ngi noonu xamante nañu trois mois ci ginnaaw laalante nañu fi ñu mat seen coow la bari ah, kon combat bi combat confirmation la. combat confirmation la ñaari xale yoo xam ne la ñu. combat bi bi mu taxawee danoo xeex ci mbedd mi. wala combat leeral. danoo xeex ba police am ci yoon. ah dañoo xeex ñoom ñaar ba police am ci yoon. la ilaha illallah. léegi nag xeexukaay bu wóor baa ngi. waaw xeexukaay bu waaw xeexukaay bu wóor baa ngi noonu ci diggante. xeex ñu lay fay. xeex ñu lay fay yéen ko dégg de mi ngi noonu ci diggante Ama 2 le grand champion moo ñu wan kanam mooy Ndamali. fils de Pape Diouf ndeysaan fils de Pape Diouf papaam nekkoon na fi nga xam ne mooy écurie Fass bu Dakar nekkoon fees gannaaw raay fii daw na jël na ko combat bi combat la boo xam ne ñoom ñaar bi ñu bëree fii dafa metti woon dañu xeex dañu bëre ba bi ñu bëree ñëpp a tàccu attention fils de Pape Diouf daan na ko jël ba seen la yomb na fils de Pape Diouf daan na ko fils de Pape Diouf daan na ko fils de Pape Diouf fils de Pape Diouf fils de Pape Diouf fils de Pape Diouf daan na ko ndeysaan jël ba seen la gaaw na arbitre ba nee na ko ñëwal ama nee na lan la ama nee na lan la laa ilaha tey waxati na dëgg lamb waxati na dëgg émission moo ko waaw papay fils de Pape Diouf a ngi noonu aha le grand boxeur papay fils de Pape Diouf papay fils de Pape Diouf a xale baa ngi noonu mais booy loo bëre tey loo bëre lan nga bëre lan nga bëre. lan dama ko a bëgg. waaw maa entraîné ba nga réew. mais li nga bëre yéeme na de. ci dama ko jaay doole. xajul si moom. ñu ah, ah. taxul ñu jóg. Ah, liñ préparé combat bi. ci mënul woon daanu. dëgg la dama ko waxoon na ko dóor mu daanu. parce que xeex la laa doon liggéey ak moom ci mais nag ñu ne ko yàlla dogalee alhamdulilah dëgg la sant nañ yàlla bu baax lan ngay wax sa doom léegi waaw lu ma koy wax mu góorgóor respecté entraînement yi mais xam nga ne la non champion la parce bu ma niroo kenn du ko daan Kaolack dëgg la di nekk si man bu nee si moom kenn du ko daan jërëjëf barki Seydina Mohamed